ah ñi ngi fi nga xamante ne bii moom moo di si Médina gis ngeen initiative bi nga xamante ne ñoom chaque année dañ koy def ren nag mu nekk ñi nga xamante ne ñoom ñoo di team El Hadj Keita ak euh, team El gis nañ ne tey lu ñu remarqué mooy ñaari capitaine yi ah ñaari ñaari ñaari waykat yi dañ ko takkal muy muy El Hadj Keita ak ki nga xam moom moo di El Diaz mbokki internet yi encore une fois di leen wax ne leen lii euh, day wane ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar lii day wane Médina ñoo ngi def initiative boo xamante ne képp koo xamante ne bi tey waykat nga da nga cee war a jox euh, da nga cee war a def euh, li nga xamante ne bi moom moo di moom moo di sa waar ba mu mat gis ngeen ko noonu l'adjoint sous préfet bi Moussa Bousso mu ngi noonu ñuy présenté ah ak ñi nga xamante ne bi tey ñoom ñoo ànd ak euh, waa Médina yi gis ngeen ko noonu voilà gis euh, ngeen El Hadj Keita noonu moom mooy présenté ñi nga xam ne bi moom moo di euh, joueur bi waaye tamit nag bu ñu jógee ci euh, El Hadj Keita moom itam dañuy dem présenté ñi nga xamante ne bi moom moo di dem présenté ñi nga xamante ne ñoom ñoo di joueur El Diazy El Hadj voilà ak Biram Konaté mi noonu ah Biram voilà l'équipe de El ko noonu équipe bu Eldiaz bi El Hadj Keita nee na ay mag lañu ah ñoo ñooy rappeurs yi gis ngeen ko ni voilà mbalax maan yee nekk ne voilà gis ngeen ko rappeurs yi moo nekk nii mbokki internet yi di leen fàttali rek ne ñu euh, fi nga xamante ni bii moom moo di euh, stade bi nga xamante moom moo nekk Medina hmm? euh, gars yi nag boo xoolee tey lu initiative bu nice lañu daal di def quoi parce que boo xoolee tey dañoo boole ñi nga xamante ne ñoom ñoo di team El Hadj Keita ak euh, team euh, ki nga xam ne moom moo di El Diaz ñu boole leen tëggal benn match wax naa ko nee naa la loolu rek day wane euh, li nga xamante ne moom moo di Medina benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar wax naa ko léegi lu rafet gis nga ko noonu xale yaa ngi noonu. sañse ba rafet comme ni ngay waxee acca musu bu soo ngi noonu di joxe li nga xamante ni moom moo di euh, kàddu moom itam pour wane ne euh, doomu mais kapp xaar kapitan bi ñëw nga jël ko aya baabu takkal ko acca waaw mi ngi noonu gis nga Fatay ak El moom itam mi ngi ci biir terrain bi ah parce que ne yëngal El Hadj noo def waaw maa ngi lay bëggee maa ngi lay bëggee mon ami de valeur waaw mais El Hadj say nga laal de ah waaw waaw bi mais gars yi wóor nañ la de waaw ko def yàllaa ko def équipe bu ne am na directeur équipe bu ne am na capitaine maay seen capitaine waaw acca noo gisee bi waaw lu rafet la parce que doomu gox bi ñu ko organisé ba pare ñun amuñu lu dul sa gox nit amul lu dul goxam moo tax tey bu ñu gisee ñëpp jàppale ñu ñëpp génn macha allah xale yëpp ñëw ah soutenir ñu dañuy kontaan waa di ñaan yàlla bu mu fi yem waaw na dem ba sax sunu paa yi ñëwaat football si paa yi ah sunu pap yi mais El Hadj am na lu ma dee sànq nee na El Hadj mag la moom mi mooy paa ba pare benn paa la ñaar mu indi ay équipe yoo xam ne ñii deuxième première division lañ nekk ñii deuxième division ay ay joueurs professionnels la fi indi man sama copain yi laa ñëw. mais El Hadj yaa ngi commencé ñaxtu te ak kii bi demagul fenn. non xamul dara. xamul dara. mais comme ñu ngi lay woo nañ la bàyyi nga dem. waa jeex na bëgg naa. ok yow taa ak El Diaz nañ leen gunge nag ñu àndandoo ñoom fi nga xamante ne bii moom moo di. ah ci kii bi mais a ngi sànnante xeer ah. sa loxo bu wax ji bëree rek moom bu jël ah. bëree man waa léegi wax ji man maa koy moom maa koy féetewoo mais wax ji xam lan la mooy yow ay équipe bi nga jël nii ñii ay joueur lañ ribaas joueur man ci Médina bi laa man xam naa boo yëpp Diaz moo njëkk am victoire ci terrain bi waaw baax na loolu ngeen di déggee incha allah ñaar yéen ñaar yéen ñaar ñëw leen ngeen taxaw initiative bu naay ah, sant balaa ngeen ah. wax ak nañ ko def du comme li may wax chaque jour maa moom suñu tur yi dafa niroo sax des mu def affiche euh, ñu taf ko si mbedd nit romb ma ne ma gis naa sa affiche parce que su gisee El Hadj mel ni El Diaz voilà donc yàllaa def loolu mënu ci dara ma mënu ci dara. C'est avec un réel plaisir que je suis venu sur instruction de Dr Djib Diallo, le sous-préfet Dakar Plateau, qui également par ailleurs un membre de Medivac, qui m'a demandé de venir assister, comme il l'avait fait au de l'ouverture, à la fermeture des activités de Medivac. Pendant quatre semaines, un mois, Medivac a eu à, accompagner la jeunesse qui, en, en, plus des activités sportives, a eu à inculquer de bonnes valeurs aux enfants. Ils ont transmis, ils, dans la mémorisation, dans l'apprentissage du, du colon. Donc ceci montre que euh, Medivac est une activité très importante. Au-delà des vacances, ils pas, ils nécessaire de laisser les enfants à eux-mêmes. Ils ont de les regrouper pour permettre aux, aux enfants de, de, se de partager des valeurs. Donc euh, comme on a eu à l'entendre plusieurs fois, son excellence président de la République appeler aux enfants les fers de lance de la, la, de la, nation. Donc merci à Medivac. Merci à toute la communauté de Médina qui a eu la main pour la réussite de cette activité. maa ngi tudd Mass Bousso man maay adjoint sous-préfet Dakar Plateau te dama ñëw tey si ndigalu sama bu jàll sous-préfet Dakar Plateau bi nga xam ne membre Medivac la mu demandé ma ma ñëw assister si fermeture activité Medivac comme ni ñu ko defee woon ci ouverture yi ñëwoon nañ serviteur bi wax ma man dana naa ñëw Medivac nag dafa doon activité bu am solo ndax vacances yi duñ bàyyi xale yi rek ñu nekk sur lu leen neex dañ leen dajale muy moment boo xam ne bii xale yi danañ communion xale yi danañ partage ay valeur xale yi danañ gën a xamante seen biir en plus activité sportive yi Médina Vague permettre nañ également xale yi les bonnes valeurs di leen jàng alxuraan président Dada faral di wax nag les enfants sont les fers de lance de la de nation donc dajale leen def si ñoom des bonnes valeurs am solo donc au nom de la hiérarchie au nom de toutes les activités je vous transmets les remerciements de la de la de merci à l'équipe d'organisation merci à principalement Didier Boubacar merci beaucoup. Monsieur Niokhor Diallo deuxième adjoint au de la Médina chargé des finances. J'ai l'honneur de représenter Monsieur le maire Cheikh Amadou Bamba Fall euh, pour l'activité de clôture de Medivac qui est une belle activité. La mer n'est là que pour les populations. L'une des plus belles images, c'est la réalisation de ce terrain de football qui a l'agrément de l'ensemble des Médinois. Nous en sommes heureux et nous sommes heureux que les populations de la Médina viennent jouer, viennent s'épanouir pendant ces vacances et nous sommes encore prêts pour faire de belles actes, de belles initiatives telles quelles pour que les populations, toutes les populations de la Médina en bénéficient. Voilà, cher. Comment vous percevez la, la euh, jeune comme euh, euh, euh, C'est la bonne crue de la Médina. Des, il faut que beaucoup de boubas surgissent ici, qu'on voit que de telles activités se développent, que les gens s'amusent, que les enfants s'amusent, s'épanouissent. et que tout le monde puisse être le mieux possible dans son corps, dans son activité, avoir un esprit sain dans un corps sain, euh, faire du sport, développer ses activités intellectuelles, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ce qu'on attend de la Médina. Et nous en avons les capacités. Nous, en tant que Médinois, nous sommes passés tous par la bonne école. Voilà ce qu'on produit à la Médina, ensemble, et les activités et les autorités administratives et les populations. Voilà la symbiose qu'il faut à la Médina et voilà dans ce cadre de cette symbiose que nous devons toujours être ensemble, de quelque bord que nous puissions être. Tout ce qui importe pour nous, c'est la Médina. Que les gens se développent, que la Médina se développe, que les populations de la Médina se sentent dans leur quartier, dans leur commune. Voilà la Médina. Et la position de la mairie La mairie prend des activités, des initiatives. L'une des initiatives, c'est ce terrain de sport, entre autres. c'est d'autres initiatives. Accompagner les acteurs culturels, accompagner les acteurs de, de, la jeunesse, accompagner les acteurs du monde sportif. Nous avons été oui, acteurs du monde sportif. Moi, en 86 déjà, j'étais le président de la section de basket du Giraffe. Je n'ai plus rien à prouver dans ce truc-là. Voilà, c'est ça la Médina en fait. Nous sommes une symbiose. Des vieux, des, des moins jeunes, des plus jeunes, tout. C'est ça la Médina. On n'a pas autre chose à faire. On est tous heureux. on se retrouve ici, on se retrouve dans les Kassak, on se retrouve dans les feux de camp, on se retrouve, on se retrouve. On est tous des Médinois. On se retrouve dans les décès, on se trouve dans les... C'est nous, il n'y a pas autre chose. On est heureux, on s'exprime devant notre jeunesse. On est très content de vous voir, de voir euh, la presse de la Médina, de voir les sportifs de la Médina, de voir les Malachman, les musiciens. Mais moi, je suis pour les Malachman, hein, je ne suis pas pour les rappeurs. Hein. Je suis Malachman. Au-delà de la Médina, est-ce que vous ne voyez pas Ah ben, toutes les bonnes actions doivent être pérennisées dans ce pays. On est, on est un et seul et indivisible. On est un seul et indivisible. C'est le Sénégal, c'est toujours le Sénégal qui gagne. Je vous remercie parce que je pense qu'on s'impatiente. Médina, parce que bi Médina di jógee biir Dakar di ñëw fii suñu maam yi jóge fa ñëw sos quartier bi benn famille moo jóge woon Médina léegi ci tuuru famille boobu greffé nañ ci ay nit ñu ñëw ñu bari loolu symbiose boobu mooy def tey Médina nit ñi séyante nañ seen biir màggante nañu jàng nañu tekki nañu ñëw ñeen ñëpp di servir seen commune xam nga initiative bu rafet bii booba jël initiative bu rafet la bu ñuy war a gërëm bu ñuy war a pérenniser bu ñu war a euh, saxal ci yeneen communes yoo xam ne comme Fass Colobane Gueule Tapée ak faneen ak faneen daal day wane ne waa Médina daal population bu déggoo la population boo xam ne ay borom xam-xam ñu ngi fi ay borom pas-pas ñu ngi fi ay borom defkatu lu baax rek ñoo nekk ci population bi. xam naa comme football bi dafa war a commencé te dañuy bañ a yéex te timis ji léegi bu jot tam ñun tam ñu julli ji ñu leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla initiative yu mel ni ñu yàgg koo jël suñu jeunesse beex suñu population bi yëpp di ci bénéficier jërë ngeen jëf. vraiment les autorités administratives yi nga. pour accompagner les initiateurs dans ce projet. ma siy jiital naturellement la préfecture de Dakar. Euh, ici représenté ñuy gërëm euh, parce que xëy na jegew woon mbir mi dafa fekkoon ma tukki waaye dégg nañ li fi commune bi def yëpp lépp loo xam dafa jëm si waa Médina surtout jëm si xale yi ñu dañ koy rafetlu dañ siy ànd donc ñu ngi gërëm monsieur le pour tout ce qu'il a fait euh, et je viens de découvrir ce terrain magnifique qui a été construit je pense que maa ngi wax ci léegi nekk que le projet en lui-même n'a jamais été contesté et je pense que la preuve est là ñu koy gërëm di ko sant parce que lii yëpp pour waa Médina la bu loolu wéyee naturellement ñu gërëm les initiateurs di leen wax ni def nañu yëpp waa Médina def nañu lu leen war ndax defe naa mbébét la war a doon ci bépp doomu Médina ñun jéemoon nañ ko def ko xëy na yoon bi ñu jëloon du woon noonu je pense que aujourd'hui c'est plus populaire c'est mieux encadré et toutes les composantes de la commune sont la dedans les forces politiques les toutes les forces en tout cas ñëpp a ngi fi accompagner ce projet qui fait l'unanimité donc nee ni ñaanal di ñaan yàlla déwén doole ji yokk mën-mën gi yokk bu ko defee plus d'enfants seront la et les parents en seront d'autant plus contents donc ñu ngi gërëm ñépp di sant ñépp lool laa amoon dama si wax jërë ngeen jëf. Midi Vague idée Bouba la mooy indi concept bi. yow xoolal yooyu gis nga fi ma ma ah si la ñu demee bi ak yooyu dafa am suñu projet ak ñun ñu jàppale ñu. mais Bamba Fall franchement bi te bu terrain bi hormis ça jëlal na leen ay ay ay t-shirt ay na leen xaalis ñëpp ñu nekk Medina yëpp jàpp nañ si franchement ñoo ngi leen di gërëm di leen sant Univac moom mën leen ko def yeneen commune mais warul yem fii parce que concept bu baax la mën na dem mën na dem commune bu nekk dañuy ñaan yàlla mu gën a continuer incha allah merci plus plus d'enfants, plus de choses, plus d'éducation, plus de choses. Voilà, parce que les enfants, il faut les sortir aussi. On les a sortis. Il faut avoir beaucoup de moyens pour faire les choses qu'on a fait là. Maintenant, on demande aussi aux autorités, s'il n'y a pas que Bamba, parce que le, monsieur le maire, il a beaucoup fait. Il nous a amenés au, Magic Land, il a fait beaucoup de choses. Il y a d'autres qui ont fait beaucoup de choses. Maintenant, il faut continuer à les, à c'est primordial, c'est plus important que tout. Voilà, et on remercie les coachs, les professeurs, ceux qui nous ont... C'est complet, c'est vraiment tout. C'est tout, je vous remercie. boo dañ naan la boo jàng siwulee de vacances la lendemain doo entraîner parce que la mooy kii dañu ne da ngay fexe xëcc xale yi ba xale yi ñëw ci lu ñu bëgg mooy indil jënd leen maillot bas flottant jox leen ko gratuitement indi leen si terrain synthétique ñu ñëw nga jël encadreur école de football yëpp ça fait l'occasion ma remercier que keroog monsieur Djibi Diallo ba mu ñëwee moom dafa jaaxloon daroon taw ci kawam moom ci boppam ak moom moo ñëw joxe coup d'envoi bi ci boppam mu ñëw da ngay gis tey ñi nga xamante ne instant bi ku ci mel ni Aliou Diop moo nekkoon sama encadreur man ak ñoom Souleymane Camara bi nekkoon équipe nationale tey moom ba léegi moo ngi nii di encadré ay xale nii terrain bi ñoom Pa As Diak tey jaraaf moom moo fi nekkoon kon tey dañ ne ñooñu ñëpp ñu àndee ndax lan dama ne c'est possible damay woo autorité yi mooy képp kuy autorité ak gox boo mën a nekk c'est a ñu taxaw ne état wala dara tey bay ñun bu ñu toogoon naan état état état lii du am dañu jug uti ko suñu jugee uti ko ba mën a am 500 xale pour ñëw jox leen xale yëpp ak kontaan ba leen taaloon micro bi ñoom ñëpp même kàddu gi lañ lay wax musuñu fi dóor xale musuñu fi wax xale lu ko naqari au contraire dañ leen di tarbuyu ñëw taxaw naxanteeg ñoom naxanteeg ñoom ba ñu egg fu ñu egg kon dama naan gars yi safe lan na gars yi ñëw autorité yeeg ak gox bu ci nekk lii c'est possible bu mënee nekk biir Médina mën na nekk partout ailleurs. tey lu mooy lan d'abord amul benn xale bu ci gaañu d'abord parce que tey pression nga doon tegu doomu jàmbur nga téye ko da ngay ñëw entraînement xale yi dem nekk fële xale yi nekk dañuy obligé xale dañuy wàcc dañ leen di gunge ba seen kër yi. keroog ba ñu demee Magic Land ci Viviane ba dañoo pare xale yi yëg ci manège concert a jeex na une heure de temps ñu nekk fi di daxanteeg xale yi ci biir pour wàccee leen ce qui veut dire tey loolu yëpp ñu nekkoon ci taxaw ku ci mel ni Mansour Anda il n'a plus mu ngi nii day ñëw investir wàcc ci parce que dañ ne loolu ñuy xaar ci tey nga dëkk bokk sa gox parce que mënoon na ne man la Mansour Ayanda ancien international mais day ñëw sol équipement am tey xale yi da ngeen doon gis ni yëpp amul woon euh, ay match de atelier lañ doon def pour les enfants di leen jàngal les b.a.-ba carrément football contrôle passe ak affaire yooyu parce que tey da ngay gis ne xale yi keroog seen dernier jour yi dañu ñëw ànd ak ay xale xale yi ñu ànd doon football ak ay école de football mais ci espace su un mois da ngay gis ni am na amélioration ñun problème mu euh, Médina moo daan infrastructure yu jag kon yii bu commencé am gars yi war nañu mën a fexe yeneen gox yi ñu ñëw taxaw mën a tàggat xale yi mën a ànd ak xale yi ci lu mel ni ci loolu la ñuy woote mais dañ naan satisfaction bu ñu am satisfaction totale la ñu am macha allah di ñaan yàlla mu gën a pérenne macha allah affaire ñuy def kay ati ati rat di remercier autorité yi fi présent yëpp sans exception di leen këram di leen sant. ak El Diaz aca nañ leen gunge ñoom fi nga xamante ne bii moom moo di ah ci kii bi mais gars yi yéen a ngi ah. sa loxo bi teeku rek moom la bu jël man ah. waa léegi wax ji man maa koy maa koy féetewoo mais wax ji xama lan la mooy yow ay équipe bi nga jël nii ñi ay joueur lañ ribaas joueur man ci Medina bi laa xam naa boo yëpp Diaz moo njëkk am victoire ci terrain bi waaw baax ngeen di déggee incha allah leer mais yéen ñaar yéen ñaar yéen ñaar ñëw leen ngeen taxaw initiative bu naay ah, sant balaa ngeen ah. waa Médina non li yàgg nañ ko def du gulet du gulet comme li may wax chaque jour maa moom suñu tur yi dafa niroo sax des mu def affiche euh, ñu taf ko si mbedd nit romb ma ne ma gis naa sa affiche parce que su gisee El Hadj day mel ni El Diaz voilà donc yàllaa def loolu mënu ci dara ma mënu ma ci dara ok kon ñu bàyyi la ngeen dem wuyu ji après